bu daanu rek dee boo daanu rek dee. kàlla bi xaj bi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 parce que cette fois-ci vidéo bi waxul ci série mais ci benn fee boo xam ne dañu gis ni dafa commencé bari ci réew mi muy fajal sa bopp dañu gis léegi ñu bari lu leen nit def dañuy fajal seen bopp li ma gën a poussé pour ma def vidéo bi tey c'est parce que sànq dama doon connecté wu ma gis benn vidéo benn copain ñu ni da doon sàcc après ma gis waaju di ko bumax man je nan la def bañ fekk ko foofu mais li ma choqué mooy ku ne xam na ni sàcc moom baaxul mais lu mu mën di doon ñu bañ a xool sàcc gi mu doon mais xool d'abord ci nit ki mu doon parce que bu ngeen xoolee vidéo bi da ngeen di gis ni nga xamante ni si moom la waaj yi di ko bumaxe mu nekk ci kaw miir mu koy bumax mu daan te loolu yaa a des risques parce que tey mënoon na ko bumax mu daan mën na dal ci dara jaare fa yàlla jël bakkanam tey yow moom ko bu mu wax police topp la jàpp la nga tëdd comme ça ci loo xamante ni si nii peut-être nit ñi wër nañ la nga wane fa ngóor a def loo xamante ni si lu ne xajoon na ci sa tëdd kaso xajoon na ci parce que si toutefois yàlla dogaloon mu daanu dal ci dara génn àdduna affaire du yem fii te liñ koy waxee rek ay du yem ci bopp borom su boobaa di nga sonn sonal say mbokk sonal say am di jàmm dëgg la sàcc la. mais jàpp nañ ko nañ ko wàcce ndànk jéem ko yóbbu police police def liggéeyam mais léegi daal dañ gis que ni Sénégal ñu bëri dañuy fajal seen bopp parce que soo waxee ñu ni police bi du def liggéeyam boo ko yóbboo léegi suba mu génnaat mais man je me quelque que quel que alpha la loi c'est la loi te loi bi waxul pour ñuy lijjantil suñu bopp yóbbul police bu defee liggéeyam ak bu deful liggéeyam yépp yow defal sa wareef muy jàpp nga yóbbul police je pense que moo gën a noppale tey nga def ci dara ba ëllëg dara dalaat sa kaw donc tey dama seetaan vidéo boobu noonu mu doon loo xam ne daf ma choqué parce que bien vrai que sàcc la et sàcc loolu kenn du ko encouragé digaluñ ko kenn mais tamit je pense que tey jii nii nit bu la sàccee nga jàpp ko yóbbu ko ci yoon après nga bàyyi yoon gérer li nga xamante ni si moo des mais si tout fois nga jéem a fajal sa bopp ba ëllëg leneen am ci su boobaa yow mi ko def doo ci génn te am na ñoo xam te ni peut bu leen nit ñi wëree dañ fay wane ngóor mën nañ fa def sax loo xam te ni si teyuñu ko bi ñuy def xalaatuñ ëllëg dara dal leen ci nag ñu commencé di réccu donc man je me dis que Sénégal phénomène boobu ñu jël lu ne xaj na ci fajal sa bopp lu jara maytu la bien vrai que tamit neexul nga liggéey sa alal teg ko benn sàmba booy jóge ñëw bëgg ko jël dina la métti trop mais quelle que soit la situation jéemal a calmé wu boo ko jàppee nga mën ko yóbbu ci yoon ñu mën a def seen liggéey donc c'est juste moom point de vue. di lancer aussi message ñi nga xamante ni si ñooy wër di jël loo xam te ni moomuñu ko te yow kooku ngay jël yëfam dafa dem daane dooleem pour am ko ba nga war a mën a ñëw di ko jël si kon pour pourquoi pas nga def ni moom dem liggéey jéem a mënal sa bopp te ñu bàyyi bëgg lu yomb bëgg vie bu nit soo bëggee dund dund bu yomb te yoroo liggéeyoo ci sàcc lañ ngay mujj parce que bëgg nga yére bu rafet nga jënd dàll fu mu gën a chéré nga jënd te xëyoo gontoo nit ki booy dund da ngay dund ci li nga tolloon à chaque fois da ngay xool ci ñi nga xamante ni yow yaa leen tane soo ko dee def rek doo sonn mais soo bëggee di xool ci ñi nga xamante ne ñoo la tane da lay pousser ngay def loo xamante ne si mënuloo ko wala loo xamante ne si waroo ko def. te lu ne mën na la ci fekk comme niñ ko faral di waxee rek kenn ku nekk li nekk sa pochette ngay demee marché mais soo bëggee dem marché bëgg fa ndugg loo xamante ni njëg gi nekkul sa pochette du sotti moo tax kenn ku ne li nga yor nanga ko doyloo te yam ci leneen lu yàlla indi nga dolli mais tey nekk ci benn niveau bi bëgg di teg bët koo xamante ni si nii yàlla daf ko may su boobaa da lay pousser pour ngay def loo xamante ni waroo ko def parce que lii tamit ñaaw na. même bu dul cadre bëmax bi ñu ko bëmax mais image imagine ñu filmer ko nii seen waa kër di ko gis bu fekkee ay parents ñu ngi ci kaw suuf nan la ñuy doxe di siggi ñu ni seen doom mooy def lii te image bi dafay des même bu lii lépp weesoo ba nga dem ba clean nekkaat ci société bi dund normal ëllëg fas yéene ngaa fondé famille fas yéene ngaa am ay njaboot anaat tey sax doom yooyu noonu buñ gisaatee vidéo bii nan lay mel ci ñoom donc nit lu muy def lu ne war na ko sóoraale li ñu faral di wax rek ëllëg du añ du reer mais lu mat a sedd la kuy xalaat ëllëg yu bari doo ci dugg donc ñu ngi tuubaat bu baax di jégalwaat bu baax tey vidéo boobu la ñu loon mu doonoon loo xam te ni uniquement suñu avis la comme niñ ko tàmmee di def wax ji nag képp koo xam ni laal na la ñu ngi tuub bu baax di jégalu te xam ni nekkul suñu intention te lépp loo xam ne ni jub na fi ngeen xam ni ndimbalu borom bi la te lu dëng ngeen xam ne ci kii wax la parce que doomu aadama matul ñu ngi dellu di tuubaat encore une di jéggalu ñépp di leen ñaanal jàmm te ñaan yàlla def ko ci àdduna bépp di leen jox dig daje ci beneen vidéo incha allah merci à tout lépp lépp lépp lépp bi nii nga koy defee nga ne Mokhtar Sarr dafa bëgg jabar bu rafet ak oto bu rafet hmm, ak palaas bu mucc ayib ak xaalis bu bari ak doomi adama yu bari ñoo nekk ci suuf ñoo koy bindee seen bi musuma def publicité bu dul tey après <laughs> dañ ma xam nga lii photocopie la mais da ngay wut sa kayit nag moo tax ma jënd raam bi lépp dama koy bind noonu yaatal miim yi yaatal mi yëpp yaasin la ba mu eh, eh, a ngi nii yaasin a ngi nii ñetti téeméer miim la waaw bu la neexee waññal téeméer miim la ngi noonu moom ngay waññal ku mu mën a décrire rek ñëwal mille cinq waaw li mooy miim gis nga bii bërki démb rek xam nga kii sept mille sept cent soixante-dix-sept gis nga ko mhm. kii rek mën naa ci duy cartable bu mu fees xaalis cartable bu mu fees xaalis mën naa ko ci duy sëñ bi mais turu raawaan bi la muy àndal moo bari juróom-ñaar fukki saabu ak benn ganaar bu weex cuuraay kanfoor yi extra lépp ak valise bu bees lépp da ko jënd tarbiya tur bi yaa joko baanoo yaa joko baanoo mooy moj bi yaa yaa joko dégg nga yaa joko yaa joko baano yaa joko baano yaa joko baano moo moo tourné ay yëpp moo ko moo ko moo ko wër nii nag nga koy placé ci biir ba pare jël tobb santang bi valise bi quoi waaw ci biir valise bi da nga suy ko ci biir nga daal di jël benn këy bu weex moo ko nii nga tëj valise bi léegi nag ci couche bi la yaa joko baano yaa joko baano yaa joko baano yaa joko baano yaa joko baano yaa joko baano 7777 par jour. pendant combien de jours. pendant 10 jours. diggante 10 jours yi ba noppee diggante 11 ak 12 11 bi boo ne nii xaalis rek nga daj ay paquet. 11 jours waaw xaalis rek nga daj paquet bu paquet bi jeexee. boo ne paquetu xaalis bi di génne du jàmm. ba boo nii nga génne waat beneen paquet. poche bi du vide bu 12 yi jeex bu 12 yi jeexee boo demee ubbi walis mu ne la nii. Abdoulaye Seydi di suñu borom subhanahu wa taala kayit bii ma ne la sëriñ yu bari ñëw nañ fi pour bëgg secret bii secret bii mënuma leen ko jox bii mu ngi nii moo tax ma boole kook suurtu Yaasin waaw non yaasin bi à part la yaasin bi tudd naa ko ci biir yaasin bi mooy mooy ànd ak am na benn yaasin bu la neexee nga def juróom-ñaari juróom-ñaari nu mu tuddee ci juróom-ñaari xob ci benn garab garab bu nekk rek nga dindi ci juróom-ñaari xob nga denc nga dem beneen garab nga dindi ci juróom-ñaari xob denc da nga ba garab mais man dama doublé loolu juróom dama def mille cent onze junni ak téeméer ak fukk ak benn ba juróom-ñaar mu jox la 7777 mooy adadu mooy adadu joxo baano bii hmm? gis nga ko kon bayre bayre xaalis la boo xamante ni bii fale ka du tuuti du tuuti